ñu euh, euh, ngi tudd Ciss ci quatorzième édition foire euh, Saladam muy fête bu ngand muy salon international éleveurs yëpp di fi daje di leen di leen ziar. waaw sama quatorzième édition bi Saladam daanaka fête la parce que avant ñu ñëw fii amoon na jongante bu noo doon muy sectoriel sectoriel yooyu ci lañ def ba pare mën a ñëw. Euh, fii Saladam Saladam nag fer la ñu ngi ñëw indi ay sujet ñu euh, indi ñaari femelle adulte euh, benn agnelle ak ñaari agneau organisation bi macha allah macha allah jéggi na dayo parce que fiñ ñu ko séntu woon sax romb na fa parce que lii salon international la daanaka rëy na benn rëy boo xam ne ñëpp gis nañ ci seen bopp feet la neex na tabarkaala macha allah waa public bi ñëw nañu à grande masse ñëw nañu à grande masse wax dëgg yàlla yàlla parce que Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku élevage la ñëpp bëgg càmm kër goo dem di fa gis euh, xaar wala nga gis fa nga gis beneen euh, animal dëgg yàlla Sénégal yi daal ay dëkku dëkku dëkku càmm la waaw. sujet yi indi ñu ngi indi ñaari femelle femelle yi ay doomu terminus lañu ñu nekk ay seex ñu siiw loolu euh, ku tudd terminus rat boo nee seexu terminus yi ñoom ñu neex ràññee loolu neex a xàmmee ñu indi benn jeune aussi. benn jeune mâle bi benn femelle bi moo ko jox moom muy sëtu Teef Minis d'ailleurs daf mi ngi fii ci bâche bi boo gisee bâche bi di nga ko gis ñu koy woowee Teef Minis ñoom indiwaat beneen jeune mâle jeune mâle bi ñu koy wax euh, Talla Arafat ñu tuddee ko suñu benn xarit euh, ñooy ànd guddeeg bëccëg moom lañ ko tuddee moom mi ci six mois ak beneen añeel boo xam ne euh, di daj dëpp gi tudd fa faay dafa waaw bergerie borom daara ji bergerie la boo xam ne li may faral di wax ñun ñëw ñu fi pour gunge kenn dañoo ñëw pour nekk numéro un les cinq meilleurs ci lañ bëgg nekk fësee na ko parce que boo gisee base bi ñu ne la patience patience est la clé de la réussite waaw ah, loolu nag am na lu muy teg bëgg nañ dem ci kanam mais yàkkamtuwuñ dara lépp ci ndànk-ndànk la ñu def waaw xanaa di gërëm mbondu élevage di gërëm ñëpp kontaan nañu lool macha allah fête bi euh, wax dëgg yàlla ñëpp seen xol sedd na te di ñaan euh, ñu daje fi waat fii deux ans incha allah kenn bañ a manqué